loo xam ne dañuy jariñ ci suñu dund di jariñ ci suñu jaamu yàlla tamit euh, euh, émission yi nag dafa bari ay laaj yu fi ñëw yoo xam ne laaj yooyu la ñuy tontu di ko ànd ak ay boroomi xam-xam ñi baax baaxoo ànd ak Serigne Mbacke Abdourahmane moo tax ñëwaat nañ fii ci Daaru Salaam Ndaam ngir fas yéene ko jébbal laaj yi nga xam ne fas nañ ci yéene gàggantiku ci bokk yi nga xam ne laaj nañ ko Euh, képp koo xam ne nag bëgg nga topp émission bi nanga ko bàyyi xel ci MKTV wala CMT GMTTV muy Grande Mosquée de Touba muy jumtukaayu taskaayu xibaar yooyu nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma bi yor jumaay Touba ñoo ko yor di ci laabire jullit yi ci seen diine kon su ko defee dañuy njëkkante ak waxtu yi jox Serigne Mbacke Abdourahmane mu nu nuyu mbokk yi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 jërëjëf sëriñ bi ñu ngi nuyu tamit bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci xarala gi sëñ Abdou Khadir Bousso sëñ Mouhamed Ngom sëñ Cheikh Diop euh, di leen ndokkeel bu baax a baax sëriñ bi kon suñu laaj bu njëkk euh, kii dafay laaj mu ne euh, ndax dana daggan ci commerçant bi mu ful bénéfice am ma maanaa jëndee fukk jaaye ñaar fukk wala bu jëndee ñaar fukk jaaye ñeen fukk ma maanaa di ful bénéfice jënde benn jaaye fukk wala jënde fukk jaaye ñaar fukk ndax bénéfice bu bari daal dagan na wala déet daanaka daal loolu la bëgg a laaj waaw sëñ Abdoulaye xam nga ci lislaam eh, fixé amu ci bu cosaan di am léeg-léeg nag bu lor amee yoon sañ na koo teg ngir bañ kenn lor kenn hmm. waaye bu jàmm am rek kenn ku ne yaa moom sa alal soo ko dee jaay lu neex nga koy jaay kum jaral jënd kum jaral bàyyi masal nit bu amoon te ab otom di ko jaay kenn du ne ko nangam rek nga ko a jaay hmm. mën naa dajeeg nit koo xam ne oto bi jërul fukk waaye moom jaral ko ñaar fukk hmm. ngir da nga bari ci ay barab nit di jaay loo xam ne la koy jaayee ñëpp xam nañ ne jaaduwu ci waaye ka koy jënd ko soxla hmm. ba jaral ko ca lu ëpp njëg safaan bi léeg-léeg mu am moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mos nañ ko wax ne ko fixeel ñu prix yi mu ne leen yàlla fixé prix yi yàlla mooy yombal léeg mbir yëpp ba ku lu seer lamb léeg-léeg mu jafal jafeel ko ba njëg yéeg waaye nag borom xox bi dañuy wax ne saa bu ñu demee nag ba noggu tonte nar am moom yoon sañ naa ñëw teg ne marchandise bi nangam yow jaaykat bi doo loru waaye doo loree mm-hmm. boo ko jaayee nangam danga nga am génn waaye kenn du ci loru mm-hmm. bu loolu amul nag jàmm rek di xew moom nga xam ne moom li muy jaay boo demee gis keneen ku koy jaay bu ko neexee man sama yëf nangam la koy jaay ak lu bénéfice bi bari bari. bu bari bari. jërëjëf sëriñ bi euh, mbokk mi dafay laaj mu ne lan la ñuy wax ci sujootu xabla wala sujootu baxda dégg naa sox am na ku laajoon laaj mel noonu ci ginnaaw. waaw xam nga sujoot moom ci boppam rek sujoot mm-hmm. bu mën a doon. Mm-hmm. dañuy bëgg nit ki sàbbal yàlla boroomam subhaanahu wa taala waaye ñaan. Mm-hmm. yonent islaam nee na fi jàmm bi gën a jege boroom mooy bu sujootee. kon sujoot dañuy sàbbal yàlla ak ñaan. moo xam sujootu biir julli la moo xam sujootub alxuraan la mhm. moo xam sujootub jamono la mhm. moo xam sujootub sant la rek sabal yàlla ko def mhm. jërëjëf sëriñ bi euh, mbokk mi dafay laaj mu ne ndax ki nga xam ne dafay jàpp te buy jàpp benn yoon lay raxas cër bi wala ñaari yoon waaye du ko raxas ñetti yoon mu ne ndax njàpp moomu dana wér wala du wér waaw xam nga jàpp bu fekkee ne cër bi tooy na li war tooy lépp tooy ñu bomb ko farata yàlla na dañoo sopp nga ñaareel ñetteel ñaareel ñett dañ koo sopp hmm. ci kaw bu njëkk bi tooy hmm. waaye bu fekkee yoon wu njëkk bi lépp tooyut amu ko benn ah saa boo xasee ragal ba raxas ba lépp tooy hmm. loolu mooy farata man bu la neexoon nga yem waaye sopp nañ nga ñaareel sopp nañ nga ñetteel bàyyi lu sopp nag du yàq dara ci jëf jërëjëf sëriñ bi euh, kii mu ne dafay laaj euh, xëy na lim dégg ñu ne ginnaaw takku sante su ci naafila boo duggee ci jàkka mu ne su fekkee da nga ñëw fekk nag imaam julli timis ba sëlmal ndax sañ nga julli ñaari rakka njëkk ngay julli timis wala da ngay dem rek julli timis directement. xam nga nit ki dañ koo sant mu julli ci muxtaar te timis muxtaar bi dafa xat boo fay soxla woo di julli ay naafi la muxtaar mën naa jeex te boobaa da ngay am bakkaar ndax ku julli ci daruur yi ci ngànt ci lulul ngànt dañuy julli euh, timis bu noppee nag mu tekkee naafi la ci mazhab Maalik sax nag diggante timis bu jant bi sooyee ba ñuy julli timis ak naafi fi kon mooy mazhabu imam Malik naafila amul ginnaaw bu jant bi sooyee dañuy julli timis ba noppi booy naafila door naafila jërëjëf euh, sëriñ bi mbokk bi dafay laaj mu ne euh, lan mooy salaatul istixaara maanaa maanaa jullik euh, istixaar ak lan la gan ñaan lañ ciy jàng waaw jullik listixaara da julli la goo xam ne kenn ci saxaaba yi riwan laay nee na yéen daf leen a jàngal ñaanagul istixaara niñ leen daan jàngale saari alxuraan yi mhm. yaakaar naa jaabir moo ko nettali mhm. radiyallahu anhu wax ne ku ci am soxla su yitteel mhm. na julli ñaar rakk yoo xam du farata boo sëlmee ne nga tàllal si loxo jàng ñaanul istixaara ñaan la goo xam ne ginnaaw da nga ba noppi ñaar rakka yoo xam ne du farata tàllal say loxo jàng ko maa ngi eh, ñaan yàlla ci sa kàttan gi nga xam ne lu am yow bi ñaa nga maanaam wax ja mooy lii may dugg bu gënee ci man yàlla na ko yombal dogalal ma ko su gënul ci yàlla na nga wëlbati sama xel te dogalal ma la gën su la bàyyee sa bu yëgee ne am nga ubbi ko jëm ca wéy ci xam nangul nañ la bu ci sama xel génne nga xam yàlla génn la ci hmm. loolu moom dañoo bëgg mépp mbir mu am solo mu nit ki dugg mu def ko mën na koo defal boppam manis na koo defal xam su la neexee sax nga wax ko ci wolof nii boo jullee ba noppi waaw boobu moom ñaan nga waaye nag ñaan guddul lool mën na ko mokkal waaye li dëgg-dëgg loolu la ndax mhm. xam xam xam xam xam li ngay wax moo ci am solo kon benn ñu tekki ko ba xam ko ba boog mu ñaan ko ci wolof waaw maa ngi sàkku daal ci sa kattan gi nga am eh, lii may dugg su gënee ci man tey ëllëg nga yombalal ma ko te dogalal ma ko mhm. su gënul ci man nag wëlbati sama xel te dogalal ma la gën ci man mhm. loolu moom moo gën ci lépp lu nit ki di dugg daal. Euh, waris ngay dem di seetlu ci yeneen jaabir daa wax ne hmm. dañu daan euh, jàngal ñaanul istixaara googu nit ñu daan jàngale saari alxuraan yi wax ne képp ku ci yittewoo mbir mu am solo bu mën a doon nag moo xam da tukki moo xam da ngay ngoro moo xam dangay dugg ci yaxantu hmm. maanaam yitte jooyu dox ju ne rek yitte mën naa gën ci yow mën naa bañ a gën hmm. nga ñaan yàlla mu tànnal li gën istixaara mooy yàlla tànnal li gën bu dekkee dugg ca gën mu yombalal la ko bu ci dugg ci gën mu wëlbati sam xel loolu moo tudd li saxaada gi ñu santaane ci sunna si mm-hmm. waaye yeneen yi ci des moom xam naa du dagan kon yenn seet yi xam nga nit ñi léegi dañoo gëm seetlu lool te te yëpp dañ koy bëgg a tuddee istixaar wala seet moom am na ci loo xam ne yiitu la ñuy tuddee kaxaana loolu moom mm-hmm. xeetu njabar la mm-hmm. di dàkk ay biddiiw di kalkin ay rëdd it yenn yit ay nax ay naxe la ndax yi ñuy sukkandiku ñaare ñu ñu bokk yëpp ñoo koy bokk am na yoo xam ay tur yi kalkin la ñu bokk tur ñëpp ñoo bokk résultat. Hmm. jërëjëf euh, mbokk mi xam naa ne laaj bi daanaka ñëwoon na ci émission yi jàll waaye xam naa da ko yitteel moo tax mu koy baamu mu ne lan mooy àttab ki nga xam ne am njàppam day toj lu bari ndax day day jàpp ci waxtu julli wu nekk wala nan lay def. waaw jàpp mu toj mu bari de mën naa doon wéradi li ñuy tuddee salas. Hmm. moo xam ne moo xam ngelaw la moo xam ngaanuwaay la moo xam daal. Hmm. maanaam luy génn ci moom génn goo xam ne du ci sagoom te lu bari. kooku dañ koy sant bu julli jotee mu jàpp. bu hmm. ba noppi nag na julli doon daa jàpp nag mu génn it mën naa wee julli. ko hmm. kooku dañuy wax ne bu mu jiite. Hmm. jiite ñu loolu dellu. waaye nag mën na julli saabu saabu saabu jàppee ba noppi lu génn it bu mu ko faale. waaw ma taqullaa mastataatum mooy ragal yàlla nañ ko mane comme moom li mu man mooy loolu ginnaaw bu jàppee woon nag mu génnaat na jàpp rek da jërëjëf sëriñ bi mbokk mi dafay laaj mu ne euh, ndax dana dagan ci waa ji muy soppi melow kawaram di ko ñuulal mu ne loolu lan mooy atte ci lislaam nag ñuulal seen blaat ay atte yu bokkut la am des na ko sopp des na ko sip des mm-hmm. dana aram mm-hmm. ñuulal ngir lëntal dafa aram moom mm-hmm. mag muy ngoro gone bëgg ñu teg ko gone tax mu ñuulal loolu dafa aram bu njëkk dañ daan wax kuy jaay ab jaam ñuulal bopp bi ngir ñu teg ko gone la mu tudd waaye léegi am ñoo xam ne ay mag lañ bu ñu ngoro ji dañuy ñuulal ngir bëgg ñu teg leen gone mhm. dafa xaram ndax lëntal la mhm. bu dee ba jihaat di bu ñu woote jihaat tey mhm. mag ay mag na ci xare bi te xëy na dana tax bu leen noonu gisee ñeme leen ñu ñuulal seen bopp ba ñuuru ay gone ngir ñu ragal leen loolu dañ ko sopp yeneen ñuulal ci des nag dañ ko sib agut ci aram moom agut ci aram bi aram daal mooy bi nga xam ne lëntal ko lal yow daal da bëgg lëntal am na loo bëgg loo xam ne bu ñu la gisee ak bijaaw bi boo duñ nangu nga fas yéene duñ ko gis. ndaw ku ndaay yi bëgg ngoroog yooyu daal nga xam ne. nga ne moom. <laughs> bëgg bëgg ngorote njàppale gone. loolu lëntal la. dëgg hmm. la. Hmm. jërëjëf sëriñ bi euh, mu ne euh, dafa bëgg nga euh, xëy na dafay laaj ku ko miraasal lii wala ku ko. mu ne ki nga xam ne dafa faatu mu bàyyi ñaari bintayni ñaari doom yu jigéen ak aqu saqiq faxal yarisu al aqu ak uh, lan mooy ab cëram muna maanaam ki nga dafa dafa faatu bàyyi ñaari doom jigéen ak mbokk mu mbokkal day mu ne ndax mbokk mi dana dondu ak lan mooy ab cëram waaw bu fekkee ne noonu ñooñu dong ñooy doonu de mm-hmm. ñooñu dong la maanaam ki faatu moom ñaari doomu jigéen dong la bàyyi ak mbokkal ndey ak bàyyi su boobaa ñaari doom yu jigéen yi ñooy jël buñ xaajee alal di ñetti xaaj ñaari doom yu jigéen yi ñooy jël ñaari la ca des ci alal ji lay jël ñaari doom yu jigéen yi ñooy jël masan tey alal ji dañ def ñetti xaaj ñaaree ñu jox ko doom yu jigéen yi ku ne jël benn mbokk mi jël la ci des te kenn noonu la dem hmm. jërëjëf loolu leer na euh, sëriñ bi mbokk mi mu daal moom daal nee na fa bëgg daal nga nga nga leeral ko lan mooy istinjaaw maanaa maanaa siw ak euh, naka lañ koy defee maanaa nit ku dem ci wanag def li ñuy wax saw ba noppi ci góor moom nee na li tax mu koy laaj mooy dafa déggoon ñuy leeral ne góor su sawoo ba noppi na am nu muy def awraam ba euh, sobe si mën a dañ waaye nee mu koy def te xëy na ni mu ko doon defee mi ngi ko ci tàmbali di jural lor mu bëgg daal nga leeral ko nan la ko lislaam sante mu mu mu siw euh, ba nga xam ne mu dana dañ te du ci jële lor waaw xam nga siw mooy seetlu nit ki bu demee bu fajee aajo ba noppi mm-hmm. ñaare sobe si lépp du mën naa bañ a génnandoo mën naa am lu takk mm-hmm. te bu daal di raxasunoo rek te deful istinja mm-hmm. mën naa génn sobe sa wàcc taqal ay yéeneem muy uh-huh. julliwaale sobe wala ay taqal yëre sobe uh-huh. ñu bëgg nag bu faja aajo ba noppi bu dee da doon tuur dugub uh-huh. na toog ba yëg ne li doon génn lépp jeex na foofu lañ ko sant foofu mooy siwu foofu bu dee da doon ndox ci góor nag dañu bëgg bu nee ba ba yëg ne li doon génn dagg na dañuy jàpp ne euh, ci awra ji dara mën na cee tag war dañ naan na ko ba noppi fëgg kon day tàmbalee jël ñaari baaraamam tàmbalee ci cosaanu awra ji mhm. di xëcc ndànk di fëgg ndànk dañuy tere def ko lu bu baax ndax loolu di indi lool mhm. baaxul ci sidit yi waaye ndànk la koy fëgg ngir lu tagoon wàcc mhm. su ko defee as bu gisul dara nag mu door raxasu loolu lu ñu sant ab jul bu la ndax ñàkk koo defi nag wóorul euh, yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam romb na ñaari bàmmeel ñaari ñiir di ñu ngi leen di mbugal te mooy ne lañ leen daan ne lañ leen mbugal day amul solo waaye am na solo hmm. daan kenn ki da doon dem wanag daawul fenn léegi hmm. daawul def siw boobu boo defee jóg di tax ak sobe kenn ki da doon da di jëw nit ñi dañuy daal di jël ay euh, xob yi ma teg naa leen xëy na fii ak ngi tooy mooy fal seen mbugal dañ cee dégg ne kon loolu mën naa jural leen mbugal hmm. moo tax moo tax moytu la nit ki saa bu demee wanag bu mu daal di yàkkamti rek nga ci jóg aajo doomu aadama léeg-léeg am mu nga jàpp na jeex na te fekk jeexul mhm. kon loolu loolu moo tudd istinja soo defee nag bu setee mu mu raxasu waaw loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam nit ki daal bu demee ci wanag bu mu yàkkamti na xar ba sobeem sépp daj surtout bu dee bu dee ku góor mhm. ndax day waral mbugal ñàkk ge bu dee des ci ay yéreem mhm. loolu moom lu am am solo la. jërëjëf sëriñ bi xam naa ñu jox la kàddu gi nga tàggatoo waxtu wi daa mel ne jot na waaw ah, kay jërëjëf sëriñ Abdou Lahad ñu ngi dellu di la sant di sant mbokk yi nga xam ne ñu doon topp jotaay bi yëpp di leen ñaanal jàmm ak àllaaxira di sàkku ngeen ñu ko ñaanal salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom mu gën laa defal kàttan gën a yaatal sa xam-xam ak wër di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñu doon topp ñëpp ci e, seen seen MKTV bu Xadimatul Xidma TV wala CMT TV e, di leen mm, wax ne tamit képp koo xam ne am nga laaj booy laaj tamit xam naa suñ jiri moom ba léegi joxeegul numéro numéro e, émission gàggantiku bi waaye numéro bi ngeen doon envoyé laaj yi ba léegi mën ngeen ci envoyé laaj yi muy 77 531 91 98 képp koo xam ne tamit émission bu nekk bëgg nga koo seetaan comme question yi ñuy laaj mooy da ngay abonné ci YouTube euh, MK MK TV wala CMT TV émission bu bu jàll chaque le 9 wala le 23 da ci jot. kon ñi ngi sant it sëñ Abdou Khadir Bousso sëñ Mouhamed Ngom sëñ Ablaye Lo mi nga xam ne mooy dajale laaj yi di leen dig daje ci seen beneen jotaayu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh واجعله مسكن خروج من ظلم linnuuri wakfi anhu kulla man dalam